tey dañu ne at mi jeex na def nañu un an il fa la def bilan wax tamit équipe bi génn fii lan la jot a liggéey wax tamit at mi lan lañ fi fas yéene def at mi nag liggéey la ñu gën a bëgg ndaxte waxtaane nañu marché Tilène dañ ko war a tabaxaat mu bees R plus 3 dinañ tabax lycée bu bees ci ndimbalu état tamit assainissement bi tamit problème la ndaxte ñun du ñun ñoo gas tali ñun defaroon nañu tali yi ba mu desoon ñeent waaye dañ ñoo yàqa suñuy tali dañuy def assainissement bàyyi ko noonu muy CSTP mbay fay donc tey loolu yàq na Médina ba kenn sawaratu fee ñëw moo tax ñu taxaw xeex nag léegi bu réglé wul ñu génn ci tali bi ñu delloo ñu suñuy tali na mu meloon loolu moom bu ñu toogee weer juguñu ci nañu génn ci tali bi bloqué ko ñu delloo ñu suñuy tali na mu meloon ndaxte nag saafara bu jur jàngoro la mbedd yi lëndëm yi banditisme yi surtout encombrement yi dootuñu nangu cantine ci kaw trottoir yi trottoir yi dañ ko bëgg a jële fi ñëpp garage yi ci mbedd yi ñu jële leen fi pavé trottoir yi dimbali mécaniciens ak menuisiers yi ñu fu ñu nekk parce que bëgguñu leen toroxal te duñu xeex ak ñoom renforcer bourse yi ba tamit doomu Médina gis ci seen bopp dugg ci ay partenariat pour xale yeeg jigéen ñi liggéey C'est ce que ko wax leen tamit ni bu ñu politique di jaxase nañu jël dooley Médina jiital ko ndax intérêt Médina. Barthélemy bokkuñu camp politique mais warul tax mu xañ Médina parce que ville de Dakar diine moomu ko tarixa parti politique moomu ko ville la ñun ñëpp a ko bokk ndaxte waa kër yi nekk Médina ak société yi seen impôt dañ koy verser ville. té impôts du jël xaliss medina diko def ko commune ñak ñu fayda def nañu 1 an dugul ñu ñaar dërëm Médina projet yi fi soam baye woon pour ñu defal tali ak tal ya yene lampe ak defal yene stade yi nanguna lepp lépp ko ci yeneen commune ba paré bëgg jël suñu ay suuf tabax ko diko ko wala mu koy jaay ñoo lank suñu bakkan lay jaar waaye du fi amé ñu dégg nga ni pour Macky Fall faluwaat est-ce que da ngay valider la troisième candidature amul da ngay valider Macky day Fall faluwaat wax du jeex la